téléphone audio 27 minutes bi. audio yaa ngi dégg audio 27 minutes. ay déglu ma déglu ma audio 27 minutes. du lu ñuy wax iPhone 7 bi iPhone 7 bi. iPhone 7 bi saa ñu xaw a dee ci réew mi mën na ko sutural war na ko bu yàgg. ay waay dimbali ma te yàlla la barke bi yombal kam xam nga lan mooy aksi bi. sutural xam nga lan mooy aksi xale yu jigéen ñi fi nekk. ay xale yu jigéen ñoo fi nekk di def ay kukki sinap di def lu ne ñu koy def di si fekk seen fekk yooyu naan su mooy oya oh, jaa jaa oh jaajal ndànk rek ku baax bu yëngu ko noonu bàyyi di yàq sama soor bu ma yàqee sama soor nga yàq ñoo ko way oh jaajal waaw oh ja maaleykum salaam waaye kii bu ma mënoo bàyyi buñ nekkee sa neex neex rek ngi ñuy yàqal ndey xaalis sama soor maa ko wëy rek ah yow sama soor maa ko wëy waaye barke yow man kam oh ya jaajal eh taxawal eh yoo xam nga yow la ma sa problème yoo jóg caa sax du da la yóbbaale mu naa naan ay moo bindu son bi ni mu la ko waxee du noonu te dara yow tamit da ngaa dëgër fit nga ne. parce que yow man xam. yow yaa bindu ko bind. ma wax. bu góor moo mooy nga ne lan jànq bu góor yow xaw xaw ma yow caa xam nga yow yow moo tax buñ toogee si biir mbooloo rek nga rusloo ma fan la jànq bu góor am. lay taxawal day nekk day werante si loolu. yow yow xam ne wax a wax ba man man ba man woo ma ban wuyu ma ko man. waaw sax maa ma ko bind. yow yow jaajaa a yow lu amul seede yow boo ko bindee Diop lu amul seede baaxul kooku. teel na defal ndànk. Diop defal ndànk rek. waaye son bi fu mu ne waaye. dala réer <laughs> yow mi wax moom mi wax baa ko foofu rek moom daa yor dara dara eh. copinam googu mu yor. oh yaa. Ah. kii da lay tar rek. waaw yow lay kii man maa ko mi ngi mi ngi eh jànku góor la. yow di nga dem jëmbaale bi. ñëwal fecc ci fecc mi rek. yow kii moo ko jël ko am am am lu son bi jox ko. warta jël moom la ñuy wax warta jël. eh xale yaa wasalaam ji oo yaa jàngal.